jamono ji toll na foo xamante ni boo bëree boo bëriwul ñuy bëri dañuy bëri daanu sa kaw yow mi bëgg a aar sa bopp aar sa njaboot kaaraange gu ànd ak ubbeeku dawal gaaw seeti docteur Cheikh Ousmane Mbow borom secret ninki nanka bi moo xam ngay commerçant artiste musicien wala politicien bëgg daal sa vidéo ba ñëpp ràññee la fépp wala yow mi bëgg am alal te doo ci sonn wàllum kayit moo ci mën moo xam ci biir réew mi wala ci bitim réew ki nga xam ni cat ak bët ak làmmañ dalaa sonal la docteur Cheikh Ousmane Mbow dafay faj li nga xamante ni moo du ndoxum siti hémorroïde moo xam interne wala externe faiblesse sexuelle ak diabète bu dee yow mi nekk nekk bitim réew wooteel gaaw ci 77 865 03 03 wala boog yow mi nga xamante ni yaa ngi ci biir réew mi wooteel ci 78 123 23 71 ak docteur Cheikh Ousmane boobu di nga defar sa bopp defar sa koom ci lu gaaw gaaw. ma lay wax nii loolu sax bëgguma mu yëg ko. non dafa am ci loo nekk dafa am ci loo jëm je te fais sama nijaay moo la wax loolu. moo ma ko wax. kon am na fu la teg ndax man lii waxuma ko woon te yëguma ko woon. si na ma bu ma ko wax kenn même yow sax daf ma waxoon ni bu ma la ko wax. parce que secret la mais man maa man maa amul sago si yow ba lu ma waaye wax ma wax la ko <laughs> waaw. fii moom damay dem moom léegi wax ko. aywaay kii aywaay seen naa dimbali ma lu <laughs> def loolu bébé <laughs> bébé mais nag dans tout ça. tu jour bi ngeen ñëwee sama kër. ah Ndekader. waaw sama nijaay ñu ko doon xool ay bët yoo xamante ne c'était bizarre ci man mais mënu ma woon def rapprochement. bi pour comprendre je me rappelle bien mais nag comme que secret am la nan ko ko dencal rek. secret fii kay amatoo looy nëbb wax leen ko ko mu xam ko. lan ngeen di xaar. non moom xëy na dafa am stratégie bu muy teg pour wax ko ko looloo tax. kon kay maa ngi soo a comprendre. tax sa yaay bañ sama mariage nekk sama nijaay li mu ko xamal lépp la. loolu la loolu ma bañ man daal dama see ñëwante Kader trop maa ngi moom lépp ñoo ko defandoo lépp tout ñoo ko defandoo. te chaque jour nga jéng nouvelle bu bees. gis nga àdduna de. waa jëkkër mm-hmm. ah, si la Matar xari Diop mbenn yaayu jal Matar si laak maram naar xale Abdou mi des tëngéej yow Sénégal maa fi gën jëkkër yow jëkkëru njëkkante nga yàlla dogal na maa ci njëkk xanaa du ah? ah. bëgg bu ma jëkkali nag fi nekk dama doolee jën ndox hmm. waaye doolee jabar jëkkër ah maa jóg kii walla am na ma def ak yow ndax. non non baax na nii lu nekk yi lépp baax na. baax yaay yaay sama yow laay sagoo yow laay tiitaroo yaa ma tere fanaan biti. kon daan euh, naa maa ngi gën jëkkër waaye senegaal kii fi ëpp rab. c'est quoi ça. lu may def ma toogee nga xam ko. yéen nu ngeen mën a dëkkee ci kër te ngeen ko nettoyé kër gaa ngi tilim balançoire bi mi ngi salté poussière jéem naa toog balancé mu mun ma ko woon. fii ngay balancé ah, wu. sama kër. sama kër aw ma fi droit balancé wu xoolal dinaa def ñëpp dinaa fi indi booy bu may nettoyer kër gi tous les jours d'accord xoolal sama loi loyer yow non loyer laa jël si. kan mooy locataire bi fay loyer bi. <laughs> yéen kii ñëw na sama kër. naan dama am auto climatisé dama am kër gu climatisé dafa fala dafa fàtte ne oto boobu maa ko moom kër gii maa ko moom yére yi ngeen sol man maay borom su ma neexoon léegi def leen taatu ne ngeen jaar yëpp. kii wax nii waaw. hey xoolal lii sur place rek bul jóg. yow waaw yow mun nga dem moom laa wax sur lii affaire jigéen la. Hmm. problème mu jigéen ak jigéen la maa koy réglé. moom sa kër. mu naan mën nga koy def taat ne laa lay laaj. yéen ñaar ñii. toogal. xaaral toogal de yow eh eh. très bien jigéen jigéen ay garabam. Kader, avec tout le respect que je te dois, tu expliqué na ma lépp man ak Aïda duñ nëbboo wax na ma na ma danga ko wax bu mu yàq biir bi. Ah na ci solution. solution mooy lan ban solution ban solution lay wut en tout daal li ma lay xamal te bariwul mooy nga assumer ndax jigéen nag ku mën a yawa yawa te yawa li ma bëgg mooy nga nangu ca ba muy teel te ku sañoon nag tey jii jur doomu DG. man nag sët dafa neex lool te mosumaa am sët mosumaa am sët te Aida kat ci quartier bii la dëkk te bëgguma noonam yi di ko reetaan damaa bëgg nag nga nangu ca ba muy teel damaa bëgg nga assumer gis nga boo assumé wul am naa caay-caay boo xamante ni dinaa la médiatiser ci dëkk bi média yi jox nañ ma nopp te lu ma leen wax la ñuy def loolu nag laa bëgg nga xam ko. Euh, li ngay wax. nangu naa ko te je pense que bu ma ñëwee ba toog ak yow fii mooy Jacine lu waroon am na am na li ma bëgg nag mooy ñu def ko ci sutura parce que kilifa la te dama am ay concurrent yoo xam ni dama bokk ñoom dëkk bi lépp lu ci am walla lu mu soxla lépp lu mu laaj dinaa ci taxaw def ko bu mat sëkk ndax xale bi may bàyyam mais li may ñaan mooy sutura waaw fu ko sutura googu nga bëgg dinaa la ko may waaye damaa bëgg nga woon ma sa waajur su ñëwee ñu waxtaane ko baax na euh, bu ma demee dinaa waxtaan ak sama yaay wax ko mu ñëw fi comme ça ngeen mën a toog ngeen waxtaan. et eh, amul benn problème sama doom nga. ay de sama doom la yow sama doom nga. boo demee nuyu ma sa yaay. j'adore parce que open mind la donc lu tax nga choisir indi ma fii. tonton mag soo gisee ma choisir fii nii pour andi la fi c' parce que bëgguma wax alentouru kër ga parce que les murs sax ont des oreilles. moo tax ma andi la ba fii. j' que di nga teg trophée sama loxo. wax nga dëgg. te li ma lay wax nii. je sais pas ndax déception la xaw ma nu ma ko mën a tuddee. lu mu mën a doon pare naa pour recevoir ko. bu xew. yaakaar naa ne sama mission ak yow fii la nar a yem. comment. Mhm. sama diggante ak yow. sama mission ak yow. Ah. fii la nar a yem. mais munu fi yem parce que tegagoo dara sama loxo Aïda da nga bëgg a génn si mission bi.

waxoon nga ma ko nag tey laa lay doog a gëm tu ma dit que ne ko am fit nga tu m'avais dit que ne du ma rëcc lu ma la jëlee nga doxal ma mission bi déjà yëg na ko yëg na ko au début énervé woon na yuuxu sama kaw mais du moom naa jéem a xool nu may defee yàq yàq biir bi et saa ma ne ko carrément munu munu nekk mais à la fin accepté na. accepté na. yes. na bijou nga ëmb. jàppal na sa trésor yaa ngi koy doog jot jàppal na lii may sa yaay alal li lay may alal lii tax sa famille bi yëpp tekki mu ngi ci ëmb bi nga ëmb. DG amul doom kii lay nar a njëkk a gis ci doom ndeyam kii moo ko nar a njëkk a wax maam yaa de moments yoo xam ne nag sët sax day dàqu doom buñ lay jaay xalu laadu ne la dafa ëmb j'espère que prix bi day gën a cher tey ngay doog a commencer mission bi ah waaw ci kaw nga am la dëggal sa bopp gëm sa bopp gëm lii nga ëmb na nga bëri ay caprice na nga réew et puis na la DG bi traité comme une princesse parce que bijou nga porté félicitations euh, permettre nga ma dara looy def nii. du Amina. sama yaay. moom laa ko wax moom laa ko moom laa ah. Abel nga jaawale sama yaay. Abel. kaay. man sama verre yi jiw parce que man ah. mm-hmm. kii ah. nii su ma ko ñëwoon rek wax la te aw ma benn preuve. xam nga damay toll. non sama xol nañ ko enterré bàyyi problème quoi. mais bu ko sama yaay yëgal papa loolu wax nekkoon moom moo ñëw sama place man nan ngay def papa. waaw non moom laa la ne la la ko xamante ne papa papa man nekkuma yoo xam ne dañuy ñëw si kër di liggéey ñu leen def naka sudul noonu man du ma noppi loo ma def dama koy wax.

soxna si ça va. ça va na nga def. ça va maa ngi ci jàmm. ça va eh, bon lii de dama koy jëndal sama jabar. Mm-hmm. est-ce ah, que ah dafa niroog sa jabar waaw dafa ah. dañoo niroo. ah d'accord dama ko bëgg na taal ci yow. bien sûr. Ah. attends attends attends attends attends. loo ci wax ma ne. eh rafet na macha allah. macha allah ah macha allah c'est très joli rafet na. yéen a nga. ma ne ndax ñeme nga. ragal naa ko léegi. moom sës nañ rek def naa ko nag. wala danga bëgg ma may la fit. waaw dina ma neex. bëgg nga ko. bul wax dara. yow yaay kii ñeme. am miir naa ba pare yàgg. ma wax la dara. Hmm. maa xam nga ne dangay gën a miir. voilà man ma la bañ dara. Hmm.

Àdùn bébé. Bọ̀wọ̀. Waaye looy woote. Danga may jox xaalis. Gaaw sama yaram dafa tàng de. gaawee ma waxal man yaa ngi may tiital di lan la danga am problème ak Khadija. déedéet. wax naa la ba tàyyi ne la soo ko defee lu ko naqati man mii nga tooñ danga am problème fa ngay liggéeyee. déedéet amul problème waaw mbaa du tonton mag tamit ba tey. du tonton mag. waaye lan la kon koo jotee yaay balaa dara di xew dama lay wax nga baal ma àq ba pare yaay yaay dama tooñ doomu jàmbur. luy dama tooñ doomu jàmbur. dafa am koo dàq ci liggéeyukaayam. dafa am koo dóor koo xeexal koo jotee lan la noo tooñee doomu jàmbur. yaa dama ëmb. nga ne la. illah Kader danga may nax dama ne tension am na yoo xam ne bu ko foog man lan la dangay dangay kaf. foo ma de dëgg rek laa wax. dangaa ëmbal. la ilaha illallah muhammad rasul ay lii fu ma koy waxee. Kader nu la lii mën a dale waa sàggan nga. Hmm? Xadija yëg na ko. ma bàyyi ba mu dem pour ñu mën a waxtaan nag déjà ñemewu ma jàkkaarloog moom li am dara lu ma koy wax yow gis nga situation xam nga sama diggante moom tey bu ma defee lii feneen waaye loolu day metti ci man metti ci moom surtout ci moom dem naa ba jaaxle ba xuloog ndaw si nekkoon a ko dindi mais boobu. dama jaaxle rek parce que aussi loolu du solution parce que xale bi aussi innocent la nekku ci laa solution wax ko xale bi innocent la yoonam nekku ci te doom alal la nawle la jigéen a ngi sëy ba xëy sàngoo suuf te yàlla dénk ko doom jigéen a ngi jur doom di ko sànni te ca yooyu jamono am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi ne siiwoo am doom dégg ko leen na yaay te yàlla mayu leen ko du ñëpp la yàlla di may chance boobu kon bu la ko yàlla joxee danga koy nangu. mais am naa gàcce trop am naa gàcce trop. dem naa ba waxtaan ak yaay ndaw si mais dafa naqari rek léegi nag nee ko dinaa fi yebal samay kilifa ñu ñëw waxtaan ak moom. wax na dëgg. amul lu ko neex loolu sagom du demee noonu waaye li ma bëgg nga xam mooy Xadija bul ko wax dara bàyyil noonu man su ma jógee dinaa seeti yaayu xale bi dinaa waxtaan ak moom yaay Xadija ñëw ma bokk moom kër gi bay bokk ak moom nii ah kay xajuma ci gàcce boobu dangay def ndànk rek ndax kee nga tooñ tamit doomu jàmbur la te bul fàtte ne kilifa nga de te àqu jigéen dafay dal bul ko def lu ko naqadi bu ko ko wax ndax kilifa nga am na nooy defeek moom rek mën na la wili pànde ñépp jot ci te su boobaa sa gàcce lay doon ak sama gàcce moo tax dinaa waxtaan ak yaayu xale bi ñu solution bàyyi noonu parce que ko yàlla mayee jàmm oom yu sedd guy ñu soog a xam nu ñuy def ak moom ak nu ñuy def ak xale bi mettee yow rek laa gis te xam naa fi ma ma ko naa la na moytu jigéen moytu xaalis ñaar lañ yoo xam ne bunt bu ñu fëgg mu ubbeeku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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñëwee nee góor ngóoraa tax jamono ji toll na foo xamante nii boo bëree boo bëriwul ñuy bëri dañuy bëri daanu sa kaw yow mi bëgg a aar sa bopp aar sa njaboot kaaraange gu ànd ak ubbeeku dawal gaaw seeti docteur Cheikh Ousmane Mbow borom secret ninki nanka bi moo xam ngay commerçant artiste musicien wala politicien bëgg daal sa vidéo ba ñëpp ràññee la fépp wala yow mi bëgg am alal te doo ci sonn wàllum kayit moo ci mën moo xam ci biir réew mi wala ci bitim réew ki nga xam ni cat ak bët ak làmmañ dalaa sonal fàtte wuñ la docteur Cheikh Ousmane dafay faj li nga xamante ni moo du ndoxum siti moo xam interne wala externe faiblesse sexuelle ak diabète yow mi nekk bitim réew wooteel gaaw ci 77 865 03 wala boog yow mi nga xamante ni yaa ngi ci biir réew mi wooteel ci 78 123 23 71 ak docteur Cheikh Ousmane boobu di defar sa bopp defar sa koom ci lu gaaw gaaw gaaw. allo